الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي أنا عليك وعلى آلك وسلام السلام عليكم وعلى آلك وسلام हरे कया मायू التي تتجلى بها ورود الحقائق السلام عليك يا من فاتيته للبريء جاد برات السلام عليك وعلى آلك والسلام

القدسي اللهم عليك وعلى عليك والسلام السلام عليك يا من جمع بين العبودات والسيادة اللهم عليك وعلى عليك والسلام السلام عليك يا عالم الرد والفلاح alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla beneen yoon di nuyu mbooloo mi lépp salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu al alimul allaama nga xamne muy cheikh al Mahi doomi cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu ci xam-xamam ci mbaxam ñëw dugg ci ustazi ustazi al mufakkir al kabir waye timit xariti ndaw yi borom jàngale yi kawe yi nga xam ne Cheikh Mamoun moo ko daan wax ne moom mooy wasiru taalim wa tarbiya ci pays Cheikh Ibrahima nga xam jarul ñu koy ñëpp xam neen kan mooy Cheikh Mouhamadul Mahi ci xam-xamam ak ci wilaayam te ci jotaay la jëm ci la jóge ko tamit fii dafay jaar ngir barkeelal ñu alhamdulillah kon mu ne jaaru fi waaye dafa ñëw dafa ñëw xaqiqatan eh, nii la koy defee at bu jot moom Cheikh Mahmoudul Mahi ndax dafa amoon kóllëre gu xóot moom ak Cheikh hasan dem Thierno daf ko bëggoon ni nga xam ne noonu la bëggee woon mboolem njabooti gi waaye xam-xam ba moo taxoon mu nekk xaritam mu nekk tamit kum daan bàyyi xel lool maa ngi fàttaliku kalimaam bu rafet bi nga xam ne defoon na ko ca Taïba Niassène bindoon ci rijaalul faydati keroog ba mu waxee Ceerno dafa xaal na ko waxal bindal expliquer pour jaamu yàlla yi jëriñu yow Mouhamadul Mahi moo tax nag gannaaw Cerno radiallahu anhu bokk na ci ñu ñu gën a encouragé pour leelakat yeeg yi nii mas naa fàttaliku ñu dem nuyu ji ko ziyaare ji ko keroog sëriñ Dramé Dramé mu ngi ci yoon wi bañ demee ñuy waxtaan ba ci kanam mu ne waaw yéen seen guddi googu noonu baa yéen a koy toppatoo góorgóorlu leen ci bu baax a baax bàyyi daf ñu daan wax ne tëgg tëggkati ndënd sax bu génnee àddina bugg naa bàyyi loolu doomam keroog baat boobu duñ ko fàtte mukk kon nag bu fekkee ne tey ñëw na ci jotaay bii nii wax dëgg yàlla dañuy yëkkati kàddu gi rekk jox ko ko mu jox ñu li nga xam ne moom leen miin di déggee dégg ci moom kalimaam yëpp baat bu nekk rekk ay duruus la ay xikam la yoo xam ne nit ki mën na koo jëriñoo kon sëriñ bi ñu ngi lay tatagal bu baax ci suñ ndigali mag cheikh mouhamadul kabir ak cheikh mouhamadul habib rakam xajja fàddem ak mboolem rakkam yi waaye tamit ak mboolem muqaddam yi dégg nga cheikh hassan dami bàyyee ko nen fu nekk ñoom ñëpp ñu ngi fi teew maa ngi gis alhaji saïd sàll male di khalifa cheikh ibrahim sàll ànd ak seen mbooloo mi waaye tamit cheikh mohamed dramé ak mboolem muqaddam yi daal ci gàttal ñu ngi teew fii tey tatagal la ci sa kër tatagal la ci say taalibe tatagal la ci sa mbooloo di la wax na la kàddu gi mu ngi jëm ci yow loo ñu waxal rek da nga doy nañu ndax sa juróomi minute daanaka mën nee na wax ne nit mën na cee jëriñu at bu mat sëkk kon seen ñëw daal tey ndollal la ci ñun euh, nga ñëw teewal fi sa bop waye tamit teewaaye benen jëm jo xam ne buñ la xolé rek gis ko ci mom muy Cheikh Baba Lamine nga xam ne waron taxawé guddigi waye momit ma nga ca liggéey ca Europe bo xam ne wax deug yalla kenn mënu ko fa uutu mu uutu len fa yene tamit ngeen uutu ko fi ñu ñaanal yalla momit itamit yàlla ko tawfiq mu ñib seeg jamm saliman de nga da kon dal lolu mo nga da kaddu gi gannaaw bo ne waxtaanam euh, incha allah dina am beneen kàddu boo xam ne dinañ ko yëkkati buñ pare nag mu ñaanal ñu ñu continuer incha allah. ma ne ñu jëm ci kàddu gi jox ko cheikh mu cheikh Mouhamadul Mahi mu cheikh Ibrahima taataan ay kàddoom waaye tamit fiñ koy waaj a joxe rakkam. di xaritam di yarinam di cheikh mun hamina momit mo mu ngi ni dugg si nga xamne mom la dan baba di far di faral di yoni su fekke ne dafa am ngant tay mu fi ñew teewal fi cheikh baba Lamine waye tamit fekk na fi ki nga xamne mag ñom ñep di professeur bu mag di cheikh muhammadul Mahi ibnu Cheikh Ibrahima ña sëriñ bi ñu ngi lay ñaanal yàlla na fi yàlla yàggal te yàlla may la wér yàlla na yàlla gën a dëgëral li nga bëgg ci xadara bi bëgg ko ci ndaw yi yàlla na ko yàlla def te lépp nga fekkee ko ci barke sa baay Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu kon ñu ngi lay jox kàddu gi di jéggalu bu baax Niass xiim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa tabiihim wa tabi tabiihim bi ihsanin ila yawmi لا أعرف إذا كنت سأملك كلمة أضيف إلى ما سمعتم إلى ما سمعنا وسمعتم جميعا من هذا الشرح الذي أفادنا وأفاضنا في مقام هذا الشيخ العظيم الذي اجتمعنا هذه الليلة آه، تعظيما لبعض مقاماته التي أنزل الله عليه تنويرا للأمة محمد صلى الله عليه وسلم ونفعا لكل المسلمين في كل أنحاء العالم نرجو من الله تبارك وتعالى أن ينظر إلى هذا اللقاء نظرة قبول ونظرة تأييد ونصر ونظرة تحقيق لآمال هذه الفئة التي سبقت وسنت لنا هذه السنة الكريمة سنة تتبع خطوات الرجال الكرام واقتفاء آثارهم في المحبة محبة الله محبة رسول الله محبة الصالحين من أولياء الله تبارك وتعالى محبة أمة, أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي مكان وفي أي زمان ولعل الذي يمكنني أن أضيفه هو أن أشكر هذه الأسرة الكريمة التي حقا ما نسيت وما غفلت عما ورثت من آبائه وعما ورثت من أجداده من أنواع الكرامات ومن أنواع الجهاد والاجتهاد في سبيل الحق وفي سبيل نصرة الحق وحقا ضربوا لذلك مثلا فشكر نعمة الله تبارك وتعالى على الآباء ونعمة شكرنا نحن على نعمة آبائنا علينا شيء واجب علينا وشيء يجب أن نقوم به في كل زمان ومكان وهذا ما تفعلون تأكيد الشكر بالشكر شكرنا الله تبارك وتعالى بما هدانا إليه من النور ومن الدين وشكرنا آباءنا الذين ربونا على هذا المنهج الصالح فهذا دليل على أن الحق حق وله رجال يقومون به في كل زمان ومكان وأن الباطل باطل أيضا له في كل زمان ومكان رجال ونرجو من الله تبارك وتعالى من أن يكون من أهل الحق ومن الدعاة إلى الحق ومن الذين يحملون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان دون آه، تعب ودون توعق ودون خوف ودون ملل nuyu ñu tedd ñu daje ci mbaar mi yëpp barki démb maa ngi doon waxtaan ak mun a ci maxat bi mu ne ma dama jàng ci jinaayatul muntasib mu ne Cheikh Sukayri di wax ne yi bidaa la yi bidaa la بون ما الشيخ الشيخ السكيري مجتهد لرك من العلماء المجتهدين المجتهد يصيب ويخطئ كما أن الشيخ حسن دم مجتهد من علماء المجتهدين في الطريقة فهذا اجتهد على أن هذا بدعة وهذا اجتهد أن في هذا نفع للطريقة التجانية وللأمة ونشر لها ونشر فضائلها لكل الأمة في كل مكان وفي كل زمان إذا فكل من ما انتشر من الخير بسبب آه، فكل ما انتشر من الخير بسبب من الأسباب فذلك الأسباب خير أيضا فما انتشر من الطريقة منذ قيام هذه الليلة في السنغال لأول مرة على يد الشيخ حسن دم انتشرت الآن على ربوع سنغال كله وهذا انتشار أيضا لفضائل الطريقة ولفضائل من ينتسبون إليها والخير كل من زاد انتشارا كل من زاد فضلا وكل من زاد نورا ونعم في يلا وباخ li nga xam ne may nañu ñu sàmm tarangaay suñuy waajur tarangaay suñuy baay te seen taranga bu gën luy tarang dëgg-dëgg pour ñoom mooy teranga a daawa ilallahi tabaraka wa taala loolu rek la am ci teranga daawa ilallahi tabaraka wa taala oote boo xam ne duñ ci sonn oote boo xam ne duñ ci tayal oote boo xam ne duñ ci ragal oote boo xam ne duñ ci dellu gannaaw ndax foofu la njëriñu doomu aadama nekk do njëriñu doomu aadama mooy lu koy booleeg yàlla lu koy dolli ci yàlla di ko dawal seytaane di ko sonni seytaane loolu mooy njëriñu doomu adama te loolu mooy sababu guddi yi ñu gëna tassare fadailu tariqa bi ndax xale yi fi daje yëpp daje fii daje ci lewna na daje kasnaak ñëpp ñu ngi daje di déglu ne am na ay fadail yu nekk ci àddina bi yoo xam ne ñun la ko yàlla may te mënuñ koo amee lu dul toog déglu ñii ñu woon ñu yoon ñu woon ñu yoon yi nga xam ne foofu la fadail yooyu nekk fadail yooyu bokk na ci benn tariqa tijaan benn la ci ah wala ëmb na ko yëpp daal ndax tariqa tijaan boo ca xasee dugg mooy ne dugg nga ci lislaam dugg nga ci imaan dugg nga ci ihsaan loolu mooy tariqa tijaan bon képp koo xam ne mu lay sababal loo xam ne dina la àggale ci biir tariqa boobu ba nga xam ko topp ko dégg ko sababal na la saada te lépp loo xam ne dina sababal ni saada baabu min abwaabi saadati donc bon ma ne ko dama doon mébét Cheikh Sukayrij ak Cheikh Hassan dem ñoom ñaar ñu toog waxtaan bon kenn ku nekk da nga xam ne waxtaan nga ak alim boo xam ne say sukkandikuwaay sukkandikuwaay yu yu dëgër la ndax kulu kilaahuma mujtahid fi fi tariqa kilaahuma mujtahid wal mujtahid kama alamtum yusibu wa yuxtiw wa kulla man zaada al xayru انتشارا وكلما ازداد الفضل انتشارا كان ذلك أفضل من كلما ازداد الخير انحسارا وانكماشا ومن الانكماش دعوة إلى البدعة وإلى وإلى هذا يكمش الخير ولكن اقبلوا إلى الخير قولوا انشروه قولوا عن الشيخ تيان قولوا عن رسول الله قولوا عن الشيخ إبراهيم قولوا عن الشيخ حسن دم لأنه يوم يب أي لير لين أكيد xet خمنا xam ne ku nekk bëgg na koo leerloo ku nekk bëgg na koo xetoo دي ci jotaay yi nit ñi dañ ko déggee te du lu luñ yokk ne ci tariqa bi la waaye luñ jàpp ne luy tasaare tariqa bi la tariqa bi xam nañ ko jeex na baas na xam nañ ko yokkuñ ci dara waaye nag lu koy tasaare ak moyen yu koy tasaare lépp loo xam ne mun nañ ko am rek danañ ko danañ ko defee comme comme ni nangoo gàmmu ci ceddo yi soppi ko diine ba ci lañ tasaaree diine naka noonu itam lépp loo xam ne gis nañ ne mën nañ ci dëgg pour tasaare suñ tariqa rek amul dara ay yëpp amul amul amul baas Cheikh Ahmad Tidiane moo am kàddu ci tariqaam jeex na lii arab na jeex na lii dagan na jeex na Cheikh Ahmad Tidiane koo am ñu des yëpp ay ulama mujtahiduna la te mu mujtahiduna xam ngeen la euh, gannaaw loolu ñun ndokkeel suñu bopp si guddi gi yëpp ndokkeel xale yeeg mag ñi góor ñi jigéen ñi euh, ñëpp ndokkeel leen ci euh, buur gi ñu buuraloo ñun ñëpp yëg ne am nañ lu am nañ am na lu ñu am ah am na lu ñu am loo xam ne jaral nañu lii jaral nañu tant yu rafet yii jaral nañu mbaar yu rafet yii jaral nañu colaay yu rafet yii toog ci mbaar mi yëpp jaral nañu ko parce que noonu la chéré ci ñun te itam noonu la chéré noonu la chéré askanu Cheikh Ahmad cher na lool askanu ci ñoo xam ne tànk ci Cheikh Tidiane tànk yu wér la yu leer la yu cher la bon nag bu ko amee fonk ko ba mu jaral ñu feeñuwaay bu rafet bu ñu ko feeñaloo ñu ngi ñaan yàlla ne nangu bu yàlla nangu la yal na ko yàlla gën a saxal yal na ñu si yàlla gën a yokk yal na ñu yàlla gën a jëriñ ci barke Mawlana Cheikh Ahmada Tidiane radiyallahu anhu li Cheikh Ahmad indi ci àddina bi yëpp voilà xam ngeen ko oh, xale yu ndaw ay 16 ans ay 18 ans ay 20 ans foo dem ci àddina bi ñooy daw jëm ci tarixa bi ñooy daw jëm ci tariqa bi te tariqa bu ñuy daw jëm ci xam nañ ne du tariqa bu yomb du tariqa foowukaay du tariqa defal lu la neex rek dugal ci tariqa bi après loo bëgg di ko am du loolu tariqa boo xam ne amul kenn ku jaar sa digganteeg sa borom te moom rek moo lay fay bon nag boo boo dawal sa bopp jëm ci sa borom dawalal sa bopp jëm ci sa borom ah, ah maa ngi doon wax sànq fële dafa am nit ñoo xam ne yàlla def leen a indi ci àddina bi pour ñu nappal nit ñi ci jamono bu métti bi jamono yi nga xam ne boo ci duggee rek di nga taseeg sa bopp da nga taseeg yàlla ah Cheikh Ahmad ci yàlla indi ci jamono bi pour ñu nappal ñu ci biir jamono waxtu yi nga xam ne ñooy waxtu barke waxtu yi nga xam ne ci la nit di wéet ak boppam yëg boppam ci lay wéet ak yàlla yëg yàlla ci lay wéet ak jamono xàmmee ne lii àddina la jamono la waaye lii man la ak yàlla la ah bon nag ki la may chance sampal la euh, euh, nappal la temps yu baax yooyu temps yu sell yooyu dëgg-dëgg nappal na lu rëy rëy rëy loo xam ne lu cher la li ci gën a kawe mooy yowmul jumaa am na ci waxtu woo xam ne ku fekk ngay ñaan yàlla loo ñaan yàlla mu baax yéen ñëpp ay jàngkat ngeen dégg ngeen lu ci war ma wax lu jeex du xaaj waxtu yu place sàngam la waxtu yu place sàngam la waxtu yu place sàngam la Cheikh Ahmad Tidiane ne waxtu yu gannaaw asri ba jant bi sola ci lañ samp si kër si ajjuma te sa xel dina la wax ne noonu la parce que ajjuma ngi dem mi ngi jeex te buy dem dafa yóbbaale dara loolu mu yóbbaale ca wagon bu mu juba ca ca ca duggin bu mu juba foofu rek la koy jële yóbbaale ko ga gannaaw tàkkusaan ba jeex ci la bëccëg bi nekk bon nag kuy sëf-sëfal ci waxtu woowu ndax wóor na dina la àgg dina àgg bëccëg bi dem na li nga ko tëjee yépp àgg na ci yàlla mu tànn ne waxtu woowu nañ ci daje di tudd yàlla ba jant bi so bi euh, euh, julli ci yonent bi ba jant bi soo vraiment jotaay yooyu ku ci toog da nga yëg ne toog nga foo xam ne bokkut ci dina bokkut ci àllaaxira ci yàlla rek la bokk ah ndax ndax jeex na yaa ngi yaa ngi dund dëgg dégg yàlla ci maanaam mi nga xam ne yaa ngi ko war a dundee ndax nit dina ci nekk ba jóg ci door a fàttali ku boppam door a fàttali ku boppam ndax nekk na ci biir jeex na si kër bi yóbbu na ko dara desatu fa lu dul rek allah allah allah ba ba ñuy jante so bi loolu la ñuy tëjee ajjuma yooyu nga xam ne wax nañ ne am na ci benn moment boo xam ne ku fekk ngay ñaan yàlla loo ñaan yàlla nga nangu ko Cheikh Ahmad Tidiane tànnal ñu tàkku tàkkusaan ba jant bi so te ku am xel toog tuuti xelaat di nga xam ne exactement tànn bi noonu la parce que dëppoo na ak xel dëppoo na ak euh, manteex dëppoo na ak euh, ni àddina bi doxee donc bon yàlla na ñu yàlla may Cheikh Ahmad ah ci Cheikh Ahmad Tidiane fi zahirihi wa fi yal nañu yàlla may Cheikh Ahmad Tidiane ak lépp lu ñuy boole ci biir Cheikh Ahmad Tidiane yal nañu ko yàlla dëggalal yal yàlla may Cheikh Ibrahima radiallahu taala anhu yal nañu yàlla may lépp lu yoo xam ne daf ñuy dëgëral ci biir Cheikh Ibrahima du bokkaale nag ndax Cheikh Ibrahima a ngi nii Cheikh Matiyaan a ngi nii non non non waaye lu mën di am rek zahir ak baatin ñoo fi nekk zahir ak baatin kenn mënu leen a tàggale ah boobu ñuy jàppee ko noonu rek ne Cheikh Ibrahima mooy Cheikh Ibrahima euh, jeex na yëpp dugg na ci biir Cheikh Matiyaan mooy Cheikh Matiyaan si de suite ba ba ba ba ñu àggee foo xam ne dañuy tey suñu gémmiñ rek dootuñu waxati ah ndax jeex na ah yal yàlla yal yàlla nangul leen seen liggéey barkel sen liggey yalla yalla deugal tanku Cheikh Hassan dem euh ci tariqatu tijaniya ak ci faydatu tijaniya tankam yoyu mu ci don dox yalla ko yalla deugal ci yeen ba ngeen ag ak mom fa nga xamne beggon na fa ag ta ag na fa sax han ah. da ngeen di agale rek yalla yalla taxaw la ba musalla ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu rafet duma guddal damay delo kaddu gi rek Cheikh mun xamin Cheikh Ibrahima Niass mu tënk kalima bi dégg nga ne ci wolof ngir mbooloo mi gën cee mën a jëriñu kon sëriñ bi kaddu gaa ngi nii euh, ñu ngi lay ñaanal tawfiq nag bu baax a baax di la yóbbante kaddu ngërmaane bu baax boo xam ne nag famille bi ñu ngi koy gërëm Cheikh Mouhamadul Amin wax naa as ci bu keroog ba mu ñëwee di jotal kaddu gi ne baaba ne na dafa am na ngàntal dégg nga ne ñëw ngir mu ngi ci yi yi ñu soxla ko Europe fu nekk ma na ko mu ne ne di dañoo ñu yebalal kim ñu daan yebal yebalal muy seen mun xamit naa nga xam ne doy na fu nekk moom it ci xam-xamam ak ci mbaaxam ak yaram ba ma ko waxee pare dama na ko baaba daal moom xelam di ñu daj rek ñun doy doy nañu na ko daal xelam di ñu daj rek ñun loolu dégg doy nañu loolu rëy na ci ñun bu yónneewu tamit wax dëgg yàlla xelam di ñu daj rek loolu doy nañu waaye nag wane na fonkeel ci bés bii nii ndax yónni rakkam bi nga xam ne du n'importe rakk waaye boroom xam-xam la waaye tamit bind kalima mënoon na ko wax nag boo demee loo ko wax rek maa ko wax waaye bindal boppam kalimaam yónnee ko ko na ko jàng ko tënkal ko mbooloo mi wane na tamit gëdd gi nga xam ne jox na ko dégg nga bés bii nii waaye jox na ko Cheikh Hassan Deme radiallahu anhu kon daal ñu ngi lay jox kàddu gi sëriñ bi di la gërëm bu baax a baax di gërëm Baba Lamine di ko ñaanal wér. waaw comme ni ko ni ngeen ko ni ngeen ko waxee rek Baba Lamine mooy nuyu mbooloo mi yëpp di leen di ma yóbbante pour ma jottali leen nuyoom wax ne jotaay bi daf koo ñor daf koo itteel itte goo xam ne lu yàlla dogal rek mu ñàkk fee nekk fekkoon ne sax tournée yi rek rek rek la boolewu ci war a saytu yaramam ni ko noonu sax dana ko jaral mu dagg yëf yi ñëw delluwaat waaye nag comme yaramam daf ko war a saytuwaale loolu du ko may pour mu pour pour mu ñëw waaye nag dana am loo xam ne bu amee dana ñëpp xamoon nañ ne xolam a ngi fi roxom mi ngi fi waaye nag am na loo xam ne nii su su su ko ci boolee dafay gën a dafay dafay gën a dëggu rek dafay gën a am jëmm parce que mbir mu baax moom lu mu gën a amee jëmm rek gën a baax euh, discours bii nag pour ma tënk ko daanaka lim ko commencé rek moom la ñuy wax baraatul istihlaal parce que bi mu waxee ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo yëkkati mbiram wàllu yàlla yi te feeñal ko feeñal na ko fii ci àddina te ëllëg dana ko feeñal ci àllaaxira mu wax ne ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala mu yahzanun yalla dafa geñ teug ndënd dama daan dégg oustad ibrahim Mahmoud job mune ala ala dafay taxaw jamono yu bur ya suñ tëggee ndënd ci ci ci ci ci penc mi ne déglu leen jamm la ñepp dañuy déglu liñ wara wax lan la ala loolu lay tekki pour wone ne liñ nara wax ci amna solo mune yalla lib lim wax ci ba tax mune ni nañ deglu moy lan mooy wàllu yàlla yi ñoom duñ tiit duñ ragal te duñ jàq yi tamit nga ne ko wàllu yàlla yi mooy ñan mu ne mooy ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla te ragal ko ñooñu dey am nañ mbëgte ci àddina am nañ dalu xel ci àddina waaye am nañ ko ci àllaaxira te loolu nag yàllaa ko dogal te yàlla lum mu xas ba dogal kenn mënu koo sotti yàlla nag mu teg ci ne loolu nag mooy kuy laajte texe ak kuy bugg xam luy texe loolu mooy texe dëgg dëgg dëgg dëgg ak ci maqama boo xam ne dootoo tiit ci àddina dootoo tiit ci àllaxira lu mbir mi jaxasoo jaxasoo dootoo tiit te boo demee yi tamit doo bàyyi sa gannaaw loo xam ne daf lay naqari doo doo jàq mu ne loolu lay ubbee yëf yi xam nga kon dama ne baraatul istihlaal mi ngi noonu parce que bés bi ci boppam li muy wund mooy waxtaanee maqaama Cheikh Tidiane ak taxawaayam ak ay jikkoom ak ay melokaaneem ak xam-xamam ak may gi ko yàlla may moom mu tàmbalee ne loolu kay ñun dañ ci roy dañ ciy topp rek ngir ut ngërmaande yàlla waaye yàlla ci boppam moom moom mooy ki nga xam ne moom loolu moo ko méngoo moom parce que mbiram wàllu yàlla yi moom moo ko yëkkati te moo ko feeñal keneen mënu koo feeñal lu may ne rek da nga cay jéem rek looy utee ngërmaande yàlla mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala boog xadisul qudsi wax ne man aadaa lii waliyan faqad aazantuhu bil bi yàlla dafa wax ci xadisul qudsi yi ne képp ku noonoo sama wàlliyu man yàlla déclaré déclaré naa la déclaré naa la guerre xam nga ku yàlla déclaré guerre nag moom wax dëgg yàlla loolu loolu loolu lu lu la lu raglu la mu ne waaye loolu danañ ci dégg boroom xam-xam yi nee nañ danañ ci déggee ne loolu boo jàllarabee wax ji mooy ku mengook sama wali yu ku top sama wali yu ba am dem man dana la mengo te dana la muju sax def la wali yu mu ne loolu la ñuy ci wax ji bo jallar bee wax ji lolou lay tek comme ku nono wali yu yalla nek nonu yalla kon ku méngoog wali yu yàlla nekk xarit yalla mu ne nag Cheikh Tidiane momu nak nga xamne ne moy mooy leer gu jolli gogu nga xamne ne moo ci leer ak yalla gogu wala bok mom mom mom lay moom moo ci yàlla ci moom la yàlla jaarale leeram gi pour feeñal ko pour jottaliku nit ñi Cheikh Tidiane moomu mooy borom bés bi nga xam ne moom lañuy ñuy waxtaanee. Mm-hmm. dégg euh, ñu borom xam-xam yi euh, te mu ne boroom xam-xam yi dañoo wax ne wàllu yu yàlla dañoo wax ne su fekkee ne wàllu yu yàlla du mooy koo xam ne dafa am xam-xam ba pare di jëfandikoo xam-xamam su fekkee ne kooku génn na ci wàllu yu génn na ci wilaaya kon yàlla amul wàllu yu mm-hmm. kon nga déggee bu yàlla mooy kan mooy ku am xam-xam di jëfandikoo xam-xam te da gis ne dëgg te mooy tariqa dëgg te mooy faju tijaan dëgg te mooy euh, lislaam jamono bu ñëwee ñetti mbir mbiray taxaw dëgg gi ci boppam ak ki indi dëgg gi ak ñi nga xam ne ñoo dëggal dëgg gi jàppale ko wala zi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi ulaayika humul muttaquun yàlla nee na dëgg bu ñëwee ka ko indi ak ña nga xam ne ñoo ko dëggal ñooñu ñooy ñi ragal yàlla te ñooñu mooy ñi nga xam ne ñooy wàlliyu yàlla yi kon nga déggee ci ne du moom rek mooy du moom moom mooy waliyul awliyaa yi waaye moom gëm ko daf lay def daf daf lay daf lay def wàlliyu mm-hmm. parce que mi ngi mi ngi nii da yàlla dafa wax ne bu dëgg ñëwee ka dëggal dëgg ga ak ka ka ko indi ak ka ko dëggal mu ne ulaayika xam nga ulaayika jama mbooloo la du kenn mu ne ñooñu ñooy wàllu ñoo ñooy ragal yàlla ñi ragal yàlla ñooñu nag bañ laajee euh, kuy wàllu yàlla yàlla dafa waxoon ne mooy ñi ragal yàlla mu ne nag ñi ngi nii di màggal bés boobu nga xam ne mooy bésu Cheikh Ahmed Tidiane boobu nga xam ne mooy bésu këtmiye bi waaye dangay gis ne rek ni mu présenté Cheikh Tidiane te saahibu munyatil di wax ko ci tàmbali bi rek daf lay wan moom i tamit daf lay présenté Cheikh Tidiane mooy kan والموي بمني والفي المحرمي غدا غوصا رشيد خليفة علي المهيميني المجيد موني ويرو محرم تي بسو سفر بي تي بسو 18 سفر بي تي لا شيخ تيجان يالا سامبوكو موي غوص غوصو نك موي كيغا خامني مو ورا كتلي جامو يالا باسكو شيخ تيجان بيمي اوت مقامو يوي دي دوخ اوت سيرين سي سيرين بوم ديغ ديم جابو تي ياو كو نيك مو خدمه لا جوخ لا الالام جيل تي fu nekk mu dugg fa di ut lu baax ñu ne ko da ngay da nga àgg ci xutbaan yootu mu ne soxla naa lu ëpp xutbaan yootu ñu ne ko ma yow li ngay def nii loo koy defee ak lu ëpp ma ma xaama xutbaan yootu loo koy utee mu ne soxlawu ma ko lu may pour bu ma ko amee mu may ma ma nekk bunti jaamu yàlla yi ci yàlla di leen jottali ci yàlla buntu jaamu yàlla yi ci yàlla di leen musal ci ci mbugalam yàlla pour musal leen loolu rek laa ci jublu maanaam maqaama boobu yëpp nekk jubluwuma ci wane ne maay nangam maay sëtu yonent bi jubluwuma ci wane ne maa tollu nangam jubluwa wane ma ci maa nangam waaye damaa bëgg am moyen pour sauver jàmm yàlla yi loolu loolu mooy mooy mooy mooy mooy mooy Cheikh Tidiane radiallahu anhu dégg nga de mu ne nag euh, yéen mbooloo mi baaba mu ne mu ngi nuyu ñëpp góor ak jigéen waaye surtout ñi nga xam ne nii ñoom ñoom la yàlla may teraangaay ñu fekkee jotaay bii nga xam ne jotaayu mbëggeel la mbëggeel rek ko ko waral bëgg ci Cheikh Tidiane bëgg ci bàyyi bëgg ci yonantu bi sallallahu alayhi te loolu lu daggan la lu war a am la waaye nag ñu dajee ba tey ci keppaaru koo xam ne dëgg dëgg dëgg bu fekkoon ne bëgg yàlla ak bëgg yonantu bi ak bëgg bàyyi drapeau la moom drapeau boobu ngi ci loxoom kooku mooy kan mooy Cheikh Ahmad euh, euh, Ahsan Cheikh Cheikh Cheikh Hassan Deme dégg de mu ne Cheikh Assane dem mooy koo xam ne képp ku ko xam jege ko yow dootoo am werante ci mandarga yi nga xam ne mooy feeñ ci moom ci jeex gum jeex takk takk takk ci ci ci ci ci ci ci leer gu mag googu nga xam ne ku boo boo boo boo ci xasee ba dugg yow doo kenn dootul a gis leer gi rek moo fay nekk mm. mu ne waaye ndokk bi nga xamee ni ni yàlla ubbi na buntab dono te bàyyi Cheikh Assane Deme bàyyi na fi ay doom yoo xam ne ñoom am nañ yàlla def na ci ñoom ci seen rooxo ak seen jëbbu préparation boo xam ne te loolu am waree nañ ci ay firnde ne ñoom pare nañ pour yenu leer boobu loolu nag maa ngi leen ci ndokkeel yéen waa kër Cheikh seen Thierno Assane Deme parce que Baba Lamine yi tamit comme ni ko euh, Cheikh Mahi waxee léegi ne euh, Cheikh Assane Deme xam nga Cheikh Mahi li mu wax sax sànq am na lu mu ci wàññi. yokuna ci sax nema Cheikh Assane dem sax nak dafa xam ci tariqa bi lo xamne sukayri pas ju xamuko moylan parce que la loolu mooy lan moy mom mom sukayri ju Cheikh Cheikh Cheikh kam dem xam na ko xam go xam ne xam gu gu jeexal lepp la daram te mom xamul Cheikh dem kon kon koku daan mom manam ken du xujji ci kawam mais mom mom ci bopam mom xujje la lu mu wax rek ci tariqa bi rek luñ meuna nangul rek mune Cheikh dem dafa ci xolam dafa am ci xolam ben safara bu fa tak bo xamne safara mbeugel la safara soso nak du fay mukk mune waye yéen ay domam wone ngeen ne yéen i tamit safara soso tal na len tal boo xamne tal bo xam ne dootu fay mukk ñu ngi len di ñu ngi len di ndokkeel ci loolu mu jàng nak aya bi nga xamne mom la yàlla wax ne walladina amanu wattabaatuhum zurriyatuhum bi imanin alhaqna bihim zurriyatihim wama alatnahum min amalihim min shay yàlla bax yàlla mune kep képp ku am baye ju bax ak maqaama bu mu mënti am ak lu mu kawe kawe ak lu mu am am itte ak yow loo gàtt gàtt itte ak loo gàtt gàtt xam-xam ndem jéem ngaa teg sa tànk ci yoonam ba rek yàlla daf lay daal di yéegal ci maqaamaam te du wàññi ci maqaamaam dara loolu nag loolu lu lu lu lu lu lu am solo la lu lu lu leen di ndokkeele la mu ne nag waxtaan ci Cheikh mooy waxtaan ci wilaaya dafa di loo xam ne mën naa gudd lool mën naa jaxasoo lool mën naa bëri ay duggante ak ay génn nga jaar fu ne waaye boo ko toppee fa ngay mujj rek mooy mooy gëlëm parce que doo xam lan nga war a wax parce que loo wax ba foog ne jeex ba foog ne jeexal nga rek boo paree rek gis ne commencé go bu ko defee bu boobaa nag dafay dal di dafay daal di dara mu ne waaw koo xam ne nii moom am na ay xaqaayiq yoo xam ne wax na ne wax nañ ne xaqaayiq ay xaqaayiq la yoo xam ne Mm, borom xam-xam yi ak yu yàlla yi foo fóonuñu sax mënuñoo fóon sax xet ga mu ne koo xam ne nii nee nañ euh, fa yu yàlla yi m ci makaama moom ay taalibeem foofu lañ foofu lañ déparé kooku mooy Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu mun wax nag ne dana jaadu mu tudd lenn ci li nga xam ne borom xam-xam yu mag yi surtout ñi dundoon ak Cheikh Tidiane bind nañ ko ci Cheikh Tidiane mu indi. lu Sukayri ji euh, wane ne Cheikh euh, kii euh, ci Jawaahirul Maani wax nañ ne Cheikh Tidiane mi ngi juddu ci atam junne ak téeméer ak juróom fukk juddoo ci dëkk bu ñuy wax Aynu Maadi sosoo fa waaye nag ci fegu ak am kóllëre ak sàmm ko bàyyiwuñ ko ba ba ba mu àgg fi nga xam ne foofu la àgg yàlla def mu teel a mokkal alxuraan lool parce que yaakaar naa ne ku mokkal alxuraan ci juróom-ñaari at hmm. waxuñ nga jàng ko juróom-ñaari at mokkal ko de mais bi muy am juróom-ñaari at ci la mokkal alxuraan loolu nag moom yaakaar naa ne euh, yàlla rek moo koy moo koy may ku ko neex waaye duut lu lu xel mën mën a mën a dégg mu jàng alxuraan mokkal ko bi mu ko mokkalee ba pare nag dafa daal di jublu xam-xam mboolem téere xam-xam yi ñu doon jàng ci jamono mu jàng ko ba mokkal ko lépp xanaa dafay niroog la waa ji waxoon bàyyi bañ jógee Dakar ñëw di ko laaj ci affaire u masaayil masala euh, jumaa ju ñu yokku te gaa yi jàppoon ne bu ñu yokkee bu jumaa ji gënee màgg imaam bi dafa war a changé ndax dafa amoon ay yu ca nekk ci ay ay mbir bi bàyyi bi leen bàyyi waxee masala yi mu yomb ci moom lool wax leen ko nii rek nii mu tëddee nii xoolul téere waa ji xaw a mel ni ku jaaxle mu ne ko xam nga lu ma lay yëgal mu ah, mu ne ko man am naa lu ëpp ñetti téeméeri téere te lépp jàng naa ko ba mokkal waaw hmm. bëgg nga dem li ma la wax dara du ci soppeeku mu ne Cheikh Tidiane tamit loolu la junj mu ne bi mu jàngee ba pare nag ba nga xam ne euh, toog euh, toog na di jàngale di def ifta xam nga jàngale ak ifta du benn jàngale mooy jàngale li am ci téere yi mais ifta nag mooy nga dem ba nga xam ne bu amee loo xam ne dafa xew te nekkul ci téere yi yow nga mën a dellu ci téere yi ba mën koo leeralal nit ñi te sukkandiku ko ci lu leer loo xam ne xam-xam lay doon Cheikh Tidiane àgg foofu gannaaw gi nag comme ni ko maa Mahi waxee mu gis ne xam-xam bu bari bii ak lii yëpp euh, naxwoog sa balaaraag euh, euh, fiq ak lu nekk jàng na ko waaye mu gis ne borom xam-xam yii nga xam ne jàng nañ xam-xam ba jeexal ko ba gore ko te terewut ñu ngi rëy terewut ñi ngi buggu feeñ terewut ñi ngi buggu du àddina terewut ñi ngi buggu seen moroom juum mu ne daal kon am na leneen lu xew loolu mooy lan li nga xam ne mooy tax xam-xam am njëriñ mooy tax xam-xam du ànd ak rëylu moo tax xam du ànd ak yëg sa bopp loolu mooy lan mooy sóobu yoonu góor yàlla yi ci la sóoboo yoonu góor yàlla yi nag ba nga xam ne àgg na ci ci maqaama yi gën a kawe mu ne waaye boo euh, Cheikh moomu ci kaw maqaamam yooyu noonu da nga gis ne zahiram lu lu lu dëgër la boo ko gisee nii danga koy dafa danga koy ragal dafay niroog corno asal euh, yërmande gi nekk ci moom euh, daanaka ñu bëri buñ ko xamoon daanaka euh, bu waxee sax dañ naan ko oh, dañuy dem tëddi nelaw waaye nag am na wegeel bu nekk ci moom goo xam ne ñu bëri foog nañ ne moom joxoñ la nga dee rek moom moom moom moom moom la man te moom mënta rey sax melentaan <laughs> waaye loolu yëpp mooy ne ku am baatin sa baatin bi dafay feeñ ci sa saaxir ku rafetoon la waaye nag ku amoon tëb kiin la maanaam ku ku am dëgër la koo xam ne moom dara mënu koo yëngal dara mënu koo jaxase waaye nag ku maanaam donno gum donn yonent bi sallallahu alayhi tamit dafa feeñ lool ci ci ci zaahiram waaye feeñ yi tamit ci jikkoo niroog yonent bi niroo boo xam ne niroo gu jéggi dayal waaye Cheikh Tidiane yi tamit moom ci boppam ak waa këram dañ leen doon joxe misaal ci mën a topp yoon mën a topp na ak mën a topp diine nga xam ne kon loolu dàq na tuuma kuy wax ne maanaam ay xam yàlla nangam nangam karab karab la waa ji waxoon mu ne mu ne papaam ak yaayam na ngeen na ngeen na ngeen xam ne safara ngeen jëm ñu lu tax mu ne parce que xamu leen yàlla mën ne ko yow tamit bu fekkee ne bàyyi li mu fi indi pour nit ñi yóbbu seen bàyyi safara la wala yóbbu seen yaay safara kon kon mbir mi doy na war war nañ ko seetaat de dégg mu ne nag mu wax lu am solo nag ci jamono ji ci jikkooy Cheikh Tidiane yépp am solo waaye daf ci am loo xam ne jamono ji daf koo laaj mu ne Cheikh Tidiane ku amoon dogu la lépp koo xam ne nii la maanaam dafa amoon dogu ak xasmu dafa dogu fa mu bugg a àgg foog mu àgg fa waaye tamit daf koo booleeg teg ko ci xel mu rafet teg ko ci yoon dégg de mu ne Cheikh Tidiane wax na ne man bokk na ci sama jikko lépp lu ma tàmbali rek danaa ko àggale mu ne Cheikh Tidiane lépp lu toq ci xelam mi bu bugg ko rek daf koy daal di tàmbali te lépp lu mu tàmbali rek dana ko àggale tànk bu xasee ba songu dara nag buggu ko ci lu baax tànk amut ko rek du noppalu du du du du tëdd loolu noonu lay def te yi tamit mbir yi mbir yu kawe yi rek moo ko ñor la nag a kawe rek ci nga koy gis mais yu yu ñàkk fayda yi ak yu tuuti yi même bu fekkee ne xaraamut sax doo ko ci gis mbiram mbir yu kawe rek ci nga koy gis dërëm nag moom du du du du du du taxaw ci ci loxoom daf jaar rek pour dem mooy li benn waay waxoon ci bàyyi benn tubaab bu doon bind ci bàyyi bu ñëwoon fii mu ne moom lenn moom seeta na ko ci bàyyi mooy bàyyi moom loxoom bi passoire la pour xaalis maanaam jaarukaay la rek boo xam ne dafay jaar rek pour dem pont la rek boo xam ne dafay jaar pour dem mais dërëm du fa taxaw dégg nga de mu ne bu toogee ba am ba leer yi anwaar yi jolli ci biiram da koy daal di seetlu ci kanamam gi da gis mu leer leer goo xam ne dafa jéggi loolu dañ ko doon misaal ci donoom muy bàyyi ñun bi ñuy xale dañ doon wax loo xam dañoo foog ne waxi xale la mujj gi ñu dégg mag ñi di ko wax ñu xam ne kon du waxi xale mooy ne bàyyi léeg-léeg mu ñuul léeg-léeg mu weex léeg-léeg mu mu mu mu mel nii léeg-léeg mel nii mooy dëkkate mooy li ñu wax ci jawaayirul maani ne Cheikh Tidiane léeg-léeg leer gi mooy àgg foo xam ne boo ko ne jàkk da da ngay da ngay da ngay da ngay gis tar bo xam gis lo xam da fay daldi mom sa xol bi bu doto bëgg a tàggoog moom ndekete sax mom amna na jamono boo xam ne looloo muy mur kanamam gi parce que léeg-léeg mu nek ci tar bo xam ak leer go xam bo xasse ba janoog mom doto doto doto liggéeyi doto doto doto dem fenn te lolu mom taxu koo jóg bu ko defee mu ne euh, comme nonu lañ waxé ci mom ci lu bëri ba aksi nag ci li nga xam mom la bàyyi wax ci mom mu ne bàyyi bi muy rexetat xijaaseel ula bi mu koy def daf koo tàmbalee faas lu tax mu tàmbalee ko faas ngir am gannaaw bu amee ndigal ndigalu boo xam ne ndigal bu général la dafa bëggoon beneen ndigal boo xam ne ndigal spécial la boo xam ne daf koy am nga déggee ci ne liñ digle xam nga euh, liñ digle digle ko ñëpp mooy jàng alquran mooy jàng euh, mooy mooy mooy jàng hadis mooy joxe mooy def lu baax ndekete am na ndigal loo xam ne moo ñëw ci alxuraan jox ko ñëpp mais ndekete gannaaw ndigal boobu nga xam ne ñëpp lañ ko jox dafa laajaat beneen ndigal boo xam ne ndigal xaas la pour nga mën a am nag ji efficacité bi nga xam ne moom nga war mu ne looloo ko yóbbu Faas pour mu dépare Faas dem Màkka pour nag léegi jëlee fa ndigal nag pour nekk nag uutalu Cheikh Tidiane ci kaw suuf uutu ko uutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour nag jottali leer googu ak tëbb googu nga xam ne moom la war a jottali mu wax ko nag ne jaar naa dem naa fas ziyaare ji sama sëriñ sama sëriñ boobu nga xam ne képp ku ko ziyaare si lépp loo am ci soxla dana faju kon man ziyaare naa ko ni ko suma bàyyi ziyaare woon ay soxlaam faju man ziyaare naa ko sumay soxla yépp yàlla faj na ko gannaaw loolu mu ne ba mu fa jógee nag la ñëw nag wax nit ñi moom bàyyi wax carte d'identité wax mooy kan ne maa ngi seedeel yàlla di seedeel yonent bi sallallahu di seedeel Cheikh Tidiane ne sama pas-pas bi nga xam ne man ci lay dee te maa ngi ñaan yàlla bu ëllëgee ci laay dekki mooy maa ngi seede ne yàlla kenn la amut bokkaale amut niroo amut kenn ku bokk ak moom ay melo amut ku kenn ku moom bokk ak moom ay jëf moom moo bind yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loxo moom kenn amut di kenn dimbalewu ko ci ba pare nag def ko muy jo muy muy bunt bi nga xam ne ku lépp luy jóge ci yàlla nit munu koo munu cee am dara looy bëgg wala looy laal lu may nga jaar ci nga jaar ci nga jaar ci yonent bi sallallahu alayhi mu ne gannaaw gi tamit nag Cheikh Tidiane mooy bu moom la yàlla bind def ko mooy bunt bi nga xam ne mooy bunt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amut luy jógee ci yonent bi loo xam ne nit mën na koo yaakaar pour am ko te jaarut ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne waaye nag borom euh, xel yu rafet yi ak borom xaqiqa yi ñoom it bu boobaa dañuy joxoñ bàyyi ne ko yow it kay loolu li muy tekki mooy yow yaay suñ bunt ci Cheikh Tidiane lépp lu jógee ci Cheikh Tidiane nit mënu koo am te ñëwut ci yow mu ne nag muy euh, mu wax ne si yonent boobu moom la yàlla def muy muy muy muy muy comme comme loolu comme maanaam mooy bunt bi nga xam ne dara lu jóge ci yàlla nit mënu koo am te jaaroo ko ci Cheikh ci ci yonent bi waaye dara lu jóge ci yonent bi nit mënu koo am te jaaroo ko ci Cheikh Tidiane mu ne kon kay danañ ci déggee ne dara lu jóge ci Cheikh Tidiane yi tamit mënta jaar fenn kenn am ko lu mooy nga jaar ko ci jaar ko ci bay mu ne loolu nag mooy wane ne bàyyi moom joxoñ na boppam wane ne yàlla la gëm yàlla moom nga xam ne kenn la seet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wasiilaam waaye mooy wasiilaay mooy mooy wasiila bi waaye moom wasiila bi koy yóbbu ci yonent bi sallallahu alayhi wa mooy seex Ahmad Tidiane loolu moom bàyyi déclaré na ko mu leer muy muy muy nu mu mu ne bàyyi sax dana wax ne maa ngi gëñ ci tuur ne Cheikh Tidiane gannaaw bu ma jàppee ci moom. dugg ci moom dugg ci moom àgg naa ci moom foo xam ne léeg-léeg dana may yenn loo xam ne buñ ko yenoon jibaa jëbalu Xunayn mu mu daal di tasaaroo te jëbalu Xunayn rëy na de te bëri na doole mu ne waaye mu may yen ci ay mbóot ak ay yëf ak ay leer loo xam ne buñ ko yenoon montagne yu mag yi montagne bi dafay daal dafay daal di dafay daal di toj mu ne nag ci biir loolu nga xam ne ñi ngi ci biir seey googu nga ñu seey ci biir yonent bi ci biir euh, biir Baye Baye seey ci biir Cheikh Tidiane yu Cheikh Tidiane seet seey ci biir yonent bi yonent bi seey ci biir yàlla mu ne ci biir loolu ci jamono jooju ak teewaay boobu noonu maa ngi jottaliku ci maqaama boobu ak barke boobu di ñaan nag ñaan yu yu yu yu tedd yi ne maa ngi torox loolu yàlla di ñaan yàlla yàlla na yàlla xettali euh, yonent euh, xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla bindal euh, ndam ak ak ak ak ak ak yàlla ñu yàlla bindal ndam ci kaw suñu noonu ndam loolu nga xam ne ñun ci suñ gis-gis doomi aadama ñi ngi foog ne mi ngi sori te bu dee ci yàlla la lu jege la yàlla nañu ko yàlla jege yàlla nañu yàlla may fatxu ubbil ñu fatxu ci xam-xam fatxu ci maarifa fatxu ci alal fatxu ci wér gu ci lépp yàlla nañu ko yàlla may te mu nekk fatxul mu biinil akbar te mu yàlla yàlla na yàlla na dajale mboolem xadra bi xadratul ibrahimiya mbooleem ku bokk ci bàyyi ak foo mënti jokk ku mënta doon sa wasila ñëw ci bàyyi ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla jotale seen càkkutéef càkkutéef goo xam ne mooy mboolem jawaami jawaamiul xayraati dafa dafa dégg arab nag ba nga xam ne benn baat bi muy wax baat bi dafa jawaamiul xayraati parce que jawaami ci boppam jamu jaami ci boppam jamu la jawaami ñu jama ñu jamawaat ko jamoo xayraati loolu lim lim wundu ci ay barke ay ngëneel ak ay ay ay ay yiw kenn xamut nu mu toll maanaam daal euh, lépp luy barke lu yàlla di may rek yàlla ñu ko yàlla may yàlla nañu yàlla may euh, ba pare wa ajaay bil infirajaat ak i tamit yàlla may ñu ubbee ak defal ñu yomb yomb ak génn waaye bu rafet ci suñuy jafe-jafe loo xam ne dafay mujj sax yéeme ngir ngir ngir ngir nim nim nim amee kenn foogu ko woon ci lépp loo xam ne suñ mbir la moo xam ne ñu ngi ci yàlla moom nga xam ne moo jege yàlla moom nga xam ne mooy nangu ñaan képp ku ko ñaan nee na ñaan leen ma ma nangu leen yàlla moom nga xam ne mooy këriimu yàlla moomu nga xam ne mooy wahaabu yàlla nañu yàlla jotal suñ càkkuteef yëpp lii ci gàttal mooy li nga xam ne moom la Baba Lamine wax ci mbir mi man nag li ma gën a neex ci mbir mi ren mooy lii parce que man duut ne damaa sikk ne euh, laylatul katmiya lu ñu war a def la duut ne dama cee dama dama koo sikk xaasa lillaahi waaye nag borom xam-xam soo ñëwee ci moom doo ko wan ne ko doo ko doo ko jàngal danga koy laaj ba xam ndax man argument yi ma yor nga xam ne bu ñu ma laajoon lu ñuy layee kët mi mën naa koo layee fu ma ñëwee ci sëñ maa yi di ko wax ne ko lii mooy suma argument dafa mel ni dama koy jàngal wala dama koy wan ne ko damaa xam mais dama koy wan ne ko xaw ma laaj ko moom mu wax ma parce que bu ma ko waxoon samay argument sax mën naa am ma fere ne ko mais xool argument yi ma wax am na yeneen yu ma mënoon a wax jëlee ko ci alquran jëlee ko ci hadis jëlee ko ci nangam parce que bàyyi nee na man sama dalil ci gàmm su ma tegtal ci gàmm moo yonent bi sa alayhi wa yàlla daf koo wax ne ko danaa la nettali xibaar yi ñi la jiitu woon ndax loolu dana dëgëral sa xol ci gëm yàlla mu ne bu fekkee ne yonent bi dégg xibaar yi nit ñu baax ñu ko jiitu woon dana dëgëral gëm xelam ci gëm yàlla kon ñun ñii rawatina. mu ne loolu mooy mooy kii xanaa loolu kay mën naa su nekk sukkandiku waaye ci laylatul katmiya parce que su fekkee ne euh, du ni tamit nettali ñu xibaaru Cheikh Tidiane nettali ñu ay jaar-jaaram nettali ñu ay mayam wax ñu maqaamaam ci yàlla demal demal ci muriyatul murid wala nga dem ci jawaayirul ni nga gis garanti yi nga xam ne moom la Cheikh Tidiane wax ne moom la ko yàlla garantil ci tariqa bi déjà rek tariqa bi jël ko rek garanti na la yow garanti na say doom garanti na sa jabar garanti na say say say say waajur dégg nga bu bés pencee mu ne euh, dana am waajoo xam ne ku ñuy wax muflis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne muflis xam ngeen ko mooy lan ñu ne ko mooy ku perte mu ne déedéet muflis du perte de xam nga muflis mooy lan mooy koo xam ne ñëw na bés penc lépp lu baax lu ñu indi di ko peser am na ci muy julli muy or muy asaka muy saraxe muy toppatoo waajur muy nangam muy nangam lépp am na ci ay leer ay magasins yi leer yu jëm ci kaw waaye nag dafa mënoon a tooñ dafa mënoon a xaste dafa mënoon a jël alali jàmbur dafa mënoon a euh, néewal doole nit mu ne ñu ñu ñu teg balance bi yëpp baax ñu ne waaye def leen ndànk tooñoon na diw lu mu ko war a fayee ñu ne nañ jël ci yiwam yi jox waaja tooñoon na diw tooñoon na diw tooñoon na diw mu ne am na ñoo xam danañ dem sax ba seen yiw yi jeex takk ñu ne waaye tooñ yi jeex a gudde ñu ne kon nañ jël yu bon yi ñam doon tooñ di leen ko jox ba am ñoo xam ne sax ñoom dañ koo mujj gën demin ndax tooñam leen doon tooñ ñu jël seen yu baax yi jox ko ko naus billahi yooyu Cheikh Tidiane mu ne loolu ñaan naa yonent bi mu garanti ma ne loolu du dal sama taalibe bu amee lu mu war a fay tamit yàlla dafay génnee ca magasin yi fayal ko mais du jël yu baax mi di ko fayal waaw tariqa bu màgg boobu tariqa bu rëy boobu tariqa bu am garanti boobu suñ la ko waxee nga xam ko gëm ko gëm ne liggéeyee koy maye. gëm ne bokk buggu say mbokk moo koy wane moo koy maye gëm ne buggu cheikh buggu buggu wàllu yàlla yi moo koy maye gëm ne buggu yàllaa koy maye gëm ne buggu yonent bi sallallahu sa wasallam moo koy maye tax nga gën a góorlu loolu jar na waxuma la fas guddi benn guddi waaye fas guddi yu bëri waaye loolu yëpp mu bàyyi ko foofu ne ma waaye li gën a leer sax te gën a gàtt mooy Thierno Assane Dème mii dafa duut gone kenn ci tariqa bi lépp loo xam ne moom de euh, saxal na ko rek wala mu mu mu dëpp mu mu mu mu mu mu mu sundaal ko rek ci tariqa bi rek ci ci tariqa bi la bokk. Mm-hmm. te i tamit laylatul katmiya comme ni mu ko waxee du ne ci tarixa bi la bokk parce que du du du lu ñu lu ñu boole ci tarixa bi jàpp ne booy jàpp tarixa bi dafa bokk ci li nga war a sart yi nga war a jël du loolu waaye nag moyen la boo xam ne danañ ci mu ngi mel ni rek produit bu baax bii nga war a euh, jaay il faut nga def ci ci kaw euh, luy xamle produit bi ñaata la yan vitamine moo ci nekk yan nanga moo ci nekk yan yan avantage yi ci nekk pour ki koy xam ki koy jënd gën koo mën a gën koo mën a bëgg pour pour pour xam bon Cheikh Tidiane loolu rek lañ ci jublu ci Laylatul Katmiya kon nag euh, boo ci boolee li Baba Lamine wax ne Thierno Assane dem safaraaw mbëggeel bu tàkk la boo xam ne du fay ba bés pécc waaye alhamdulilahi am na doom yoo xam ne ñoom it taak seen seen seen jumoo nañ ca safara soosu taal boo xam ne dootu tàkk ba faw kon loolu ñu ngi leen ciy ndokkeel góor ak jigéen di ci ndokkeel képp ku teew fii di ñaan yàlla ñaan yi fi ñaan yëpp yàlla na ko yàlla nangu yàlla yàlla teg loxoom ci yéen sàmm leen zahiran wa baatinan def leen ay wasaa'il pour tasaare tariqa bi comme ni mu ko defee woon seen baay ba ba def ko seeni doom def ko seeni sët ba e, bés penc ñu taxaw ci kanam baay mu gërëm ñu sant ñu présenté ñu ci kanam Cheikh Tidiane mu mu mu gërëm ñu e, ñu ñu taxaw ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu gërëm su fekkee ne ñetti maqaamu yooyu sax am na yàlla na yàlla nangu loolu yàlla na yàlla sàmm ñu sàmm suñ diine sàmm suñ xalifa sàmm suñu imaam def ñu boole ñu bëgg def ñu e, ñu ñu bëggante ngir yàlla jàppante ngir yàlla di feddali suñ kóllëre ci Corno asan di feddali suñ ci ci kóllëre ci njabootam di leen wax ne ngeen gis ñu ak ngeen ñàkk ñoo gis euh, xaj na xat-xatu àddina bi ak ñàkk fayda ak doomi aadama waaye suñu xel ak suñu roxo ak suñ lépp mi ngi ci yéen jamono ju nekk te loolu mooy li nga xam ne moom la ñu baaba jàngal te moom moom la ñu daan wax bés bu set waaye nag man yónni gii mu ma yónni ci daaw yónnee yónneeyaat ma ko ren jël discours am jox ma ko loolu moom dars la boo xam ne moom xaw ma kan a koy fàtte mais man duma ko fàtte parce que loolu naka jekk ci laa waroon a nekk waaye nag dafa may jox sharaf dafa may jox maqaama waaye tamit daf may jàngal naka la ñu war a fonkee say nu ci tuddati parce que euh, nit ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko man dey sama baay damaa sonn ci moom toppatoo ko ba mu gërëm ma balaa muy dee léegi nag dee na yóbbaale sama ngërëm ndax dese naa ko deseel naa ko àq nag léegi fi ne gannaaw bu mu ma gërëmee ba ba seddaloo ko nit ñi ba dem mu ne ko sa bàyyi gannaaw bu mu la gërëmee ba wan la gannaaw deseel nga ko ñeenti àq yoo xam ne du la wàcc ba ba nga koy fekke mu ne ko boobu mooy ban mu ne ko nga di ko ñaanal yàlla di ko jéggalul yàlla ñaareel ba mooy ngay jokk mbokk gi nga xam ne moom moo tax nga bokk ak ñoom bu fekkee ne tamit bàyyi na fi loo xam ne daf ko daf koo daf ko fee tëraloon diggee ko fi maanaam euh, ahd bu fi bàyyi woon nga nga nga continuer ko waaye gannaaw gi nag képp koo xam ne xaritam la woon nga xam ne kii ku ko bëgg ku ko bëggoon la wala ku ko bëgg la ñooñu ñëpp nga teral leen jàppale loolu nag ci lay nekk mooy ne Corna Assane ku ne xam na ne bàyyi rek la bëgg njabootam gannaaw gi ci kaw bugg googu bugg nañ bàyyi ñu bugg nañ képp ku bokk ci bàyyi waaye njabooti bàyyi gi tamit xam nañ ne bàyyi moom i tamit Cerno euh, Asan euh, cëram cër la woon ci cëram bi moom i tamit euh, bëgg na ko kon njabooti bàyyi gi tamit ñoom ñëpp bugg nañ doomi Cerno Asan yi loolu yàlla nañu fi yàlla saxal bañ dajeek moom ànd ak ngërëmam wa ma zalika alalahi bi aziz allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim